li tax mu jóge ñëw fii te am lu ma doon wax ma ba ko. nee na li tax ba du jóge ñëw fii moom am lu mu doon wax ba ko. jëfama nee na jëfama. jox nga ma fukki nag. nee na Badou jox na ko na dina ko joxaat déwén ñaar fukk. muy lim bi muy lim bi. Samb dina joxe fukki nag. Ousseynou Samb dina joxe fukki. ak la ma koy teg. ak la koy teg. waa taw fee fukki nag. waa taw fee fukki nag. muy ñeent fukki nag. muy ñeent fukki nag. barke borom Ndar jërëjëf fukki nag. may laaj ndax ci gàmmu gi nga ko juróom fukk. màggalu déwén nee na gàmmu gi. déglu ñun ñoo ko moom. ñun ñoo koy mo fa kees. nee na ñun ñoo koy gàmmoo fa kees. loolu xam ngeen. nee na xam ngeen. la ngeen ca war def. la ngeen ca war def. man def. nee man def. manul def manul def. nee na ak cant la. ñaata laa lim. juróom fukk juróom fukk juróom fukk. juróom fukk juróom fukk ngoog. juróom fukk ngoog. fukk yi ci des. nee na fukk yi ci des. maak samay taalibe. nee na moom ak ay taalibeem. Mouride Fall ci Cité Senghor. nee na Fall ci Cité Senghor. Modou Gueye. Modou Gueye. ca carrière ca carrière. Balla. la ak Ndakaaru Pikine. ak Ndakaaru Pikine. ak Birane Ngom. ak Birane Ngom. Mbour. Mbour. nga lëkkale koog Lasare. nga lëkkale koog Lasare. loolu ay limi. nee na loolu ay limi limi lim la. yoo xam ne man mi jiita liggéey bi. nee na moom mi jiite liggéey bi. maa koy tàqantal moo koy tàqantal. ñi ci desit nag. nee na ñi ci desit nag. may naa leen digal nee na may na leen ndigal. ñuy dàq di indi. ñuy dàq di indi. nee na te dañ koy booleeg. ab xaalis bu bëree bëri. ab xaalis gannaaw nag yi yóbbu ngeen ñaar li ngeen yóbbu. waaw fukki million topp na ca. nee na gannaaw nag yi ñu yóbbu. gétt gu rëy gi ñu yóbbu. nee na fukki million topp na ca. ak yeneen yu ca topp. ak yeneen yu ca topp. ba ndëgën biig. nee na ba ndëgën biig. ak yi ma yónni maamun ci dëkk bi. ak yi mu yónni maamun ci dëkk bi. liggéey boobu yëpp. nee na liggéey boobu yëpp. nun noo koy liggéeyal nee na ñun noo koy liggéeyal Serigne Touba. ndax ngërëmal Serigne Touba fii la nekk. nee na ndax ngërëmal Serigne Touba fii la nekk.